voilà kon nag mi ngi noonu ñoo ko gisandoor coow laa ngi noonu dafay continuer ba léegi fi nga xam ne moom mooy euh, division spéciale cybersécurité ñu wan leen li nga xam ne voilà kon nag mi ngi noonu ñoo ko gisandoor coow laa ngi noonu ba léegi day continuer ci nga xam ne moom mooy euh, ci division spéciale cybersécurité ba léegi ñu ngi gis. continuer léegi ndax nag dafay gën a metti voilà nga ñëwaat ci cas bi nga xam ne moom moo am léegi ndax dafa mel ni maire bi fi jaar moom da doon wax naan Sonko Sonko peut-être ba mu demee fële nga xam ne moo ci waa kër Bougane peut-être ñoom mënuñ koo digérer quand même waaw Mati Sarr euh, am naa vitre wàcce woogu vitre bi vitre bi dafa wàcc ba mu duggee nag taxaw noonu fekk mu ngi jàkkaarloog waa waa si lañ ko euh, dugal li nga xam ne moom mooy ku ba daal di koy gaañ si li nga xam ne moom mooy jëm bi mu ngi naaj Euh, mais nag moom par rapport li nga xam ne dégg nga kàddu yi mu yëkkati moom euh, c'est diggante Ousmane Sonko la woon ak ki nga xam ne moom mooy euh, ñee ñi ngi yooxu Ousmane Sonko ñii di yooxu ki nga xam ne moom mooy Bougane loolu moo waral li nga xam ne moom mooy mbir moom moom la doon ñibbi loolu ñu bañ daal koy gaañ si li nga xam ne moom mooy mbir yi donc mu doon loo xam ne dañ koy ñaawlu parce que suba ba léegi ñu ngi gis li nga xam ne moom moo fi xew fi nga xam ne moom mooy au niveau de la direction spéciale donc mu doon spécial mu mbir yoo xam ne wax dëgg yàlla Euh, rafetlu wuñ ko si li wax xam ne moom mooy moom mooy moom mooy réew moo ko fi jar quand même. dara dara dara jaru ko fi dara jaru ko direction mhm. spéciale de cybercriminel yi dara jaru ko fi ñuy gis lu ni mel si si réew mi mhm. Bougane politicien la Sonko politicien la ñoom ñëpp a yem donc man man bañ koy bañ bañ koy bañ koy dóor maa ngi maa ngi taxaw nii di wax ak Bamba rek gis gis gis ñu koy dóor Habib TFM mhm. moo ko dimbal su nekkoon Habib damay wax ne dañ koy gën a gaañ tax naa partage image yi nga nga jéem am li nga xam ne moom mooy moom mooy image nga xam ne euh, moom moom lañ ko gaañee mais c'est c'est déplorable c'est déplorable mm-hmm. parce que gis na tey suba ngóone la woon ak moom moom moom la encore ak moom mooy waa waa kër waaye tamit dañuy wax ne foofu journaliste da ngay euh, xam sa sa sa sa équidistance euh, même su nekkee daam foo far sax ñu yàgg nañu wax ne fee lañ faral fee lañ far mais soo xëyee ba tey micro nga xam ne mm-hmm. faroo fenn wala suñu lay provoqué dañ lay jàngal euh, à l'école ñu lay provoqué yenn yenn mbir doo ko dénoncé maanaam doo si artu parce que foofu noonu da nga ñëw en tant que couvrir un média mu mel ni ngay liggéeyal sans lim wala Sénégal set ñëw tey ñu wax la yenn yi nga teg micro ban da ngay xeex loolu kon yow respecté woo euh, li nga xam ne moom ngay moom ngay ñoom ngay liggéeyal te loolu jàpp nañ ne nekkul li nga xam ne euh, lu lu baax la par par par rapport ak réew mi donc loolu daal dañ koy dañ koy ña dañ koy ñaawlu dañ koy ñaawlu en tout cas. alors situation baa ngi noonu sa moroomu concert mën nañu wax loolu sa moroom mu jigéen moom la ñu ko def mu nekk lu doy waar ban ban ban jàngat nga ci am. voilà Albourakh maa lay nuyu baax di la ziar mu nekk na la nga xamante ne si ñaawlu nañu lool parce que nag euh, góor dafa ñëwoon fii rek ngir rek def liggéeyam ñi nga xamante si nag ñoo di ay élément wu bëggaan ñoom nag ñoo ko njëkk attaqué moom tamit nag gis nga ku nekk ci nekk rek nit nga wante gis nga ki nga xamante ne si moo di Mati Sarr ñaar ñi nga xam ne moom lañ ko daan def gis nga ko noonu. ci euh, bi muy xamante ne si nag moom dugg na ci otoom di dem si la ko ñi nga xamante ne ñoo di élément yu Bougane Gueye dani daal di koy attaque ba gis nga daal di koy xaañ xeer lañ ko xaañ soo soo xëpp ko suuf euh, gis nga kanam gi yëpp takk na suuf te boppam bi mu ngi naat ci ndax xeet nga xamante ne si xaañ nañ ko mu nekk la nga xamante ne si nag ñaaw nañ ko lool ndax nag euh, liggéeyam dong la ñëwoon fii di ko des si donc mënoon nañoo rek ñoom ñoom accompagner seen leader bàyyi ñi nga xamante ne si nag ñoo di journaliste yi ñu def seen liggéey ni mu waxee ñaawlu nañ ko lool vraiment jërëjëf euh, Ndiolé comme ni nga ko waxee yëpp ji ñaaw na lool ndax nag ñi nga xam ne euh, ay journaliste lañu moom Maty Sarr Niang nekk chroniqueur ca euh, sans limite ak ci yeneen sax organe moom la ñu gaañ gaañ bu méttee métti ba sax mi ngi waagalante xamul exactement lan la war a def bien vrai que naaj bi tàng na ñu door le coup ba sa fi nga xam ne moom mooy sa jëbi toj dafa dafa xaw a compliqué alors on se pose la question. lan moo ko fi jar quand même lii nii nga xam ne moom nga gis sànq. voilà am coow li bañ tàmbaleeg léegi yàgg na mais xamuñ woon exactement ndax dinañ dem ba yegg fii nga xam ne moom lañ yegg tey ba moom mi nga xam ne moom mooy Maty ñu toj li nga xam ne moom mooy boppam. voilà mu ngi noonu Albourakh ñi nga xamante ne si ñoo def loolu ñoom nag li ñu wax mooy ki nga xam ne moo di Maty Sarr daf leen a saaga bu duggee ci oto bi waaye ki nga xamante ne si nag moo di femme bi doon dawal oto bi nga xam ne moom la Maty Sarr ñaar dugg moom xam le ne nekk saagawuñu benn yoon saagawuñu benn yoon ñi nga xamante ne si nag ñoo di militant yu Pastef gis nañ tamit takk der yi sax nag ñoom ñu ngi fa woon ngir rek mën a gérer li nga xamante ne si nag moo situation wante mu mel ni bi nga xamante ne si nag ki nga xam ni moo di Macky Sall dafa wàcc ci la ka nag ñooñee daal di koy daal di koy xaañ xeer mu nekk nag lu doy waa parce que nag liggéeyam doo nga loon def gis ngeen tamit anam bi nga xamante ne si nag noonu la mel jamono ji ndax nag jaxasoo na gis nga deret yi ko xaañ rek si deret bi ko noonu euh, di sotteeku euh, kanam gi yëpp rek daal na daal takk suuf mu nekk rek ñaaw ñaaw la nga xamante ne si gis nañ ko tey tey wuñ ko nag mu dal suñu benn moroomu journaliste jërëjëf Ndiolé comme ni nga ko waxee fàttaliwaat itam internautes yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel que nous sommes direct fi nga xam ne moom mooy Euh, division spéciale euh, cyber euh, de sécurité fii nag la ñu daal di nekk coow li bari na naam ci biir xamaguñu exactement lan moo fa xew waaye ci biti tàng na lool diggante ñi nga xam ne mooy ngoone Ngone Saliou Salma Ibrahima Fall ak ki nga xam ne moom mooy Mati ñaa ak ñooñu Bougane Gueye Dany ñi nga xam ne dañoo ñëw jàppal ko tànk coow li bari na lool lii ngeen di gis ci ay image jàppul woon ne par exemple dina fi am ndax ñii dañoo ñëw pour soutenir seen leader ñeneen ñi dañoo ñëw itam pour jël si information je que waroon na mën a ñàkk te mënoon nañu itam euh, même nit ki loo ko loo ko ko bañ bañ wala sax loo ko contre contre am na yoo xam ni war na mën a ñàkk quand même ci li nga xam ne moom mooy mbir yi en tout cas mi ngi gën di avancer te xamuñ exactement lii fan la war a mujje xamuñ exactement ndax ñoom ñi ngi fi xamuñu ndax bu ñu dem dal leen di topp ou lu ci mën di am daal euh, faw itam ñi nga xam ne ñoom ñooy yoon jël ci matukaay sinon nii ñu ko dooree ni tey ba jébi toj leneen mën na mënoon na ci am tey bu ko dooroon ci bët wala ci bakkan mënoon na gën a doy waar je pense que war nañu gën a war nañu mën a apaiser li nga xam ne moom mooy situation bi euh, ñu ñu dal am na nag euh, dañ fay ñëw pour jël si information ñëwuñu fi pour xuloo pour xeex naam bañ ko tàmbalee tey ci suba euh, lañ ko tàmbali ak man ca si teg góor gi waaye vi ko man awma doole Euh, mënuma xeex faale wu ma ci kenn wax dëgg yàlla comprendre nga. mooy lan moo tax bi tey ñu ñoom ñu am ko ñu nemmeeku ko ñi nga xamante ne moo di militant yi buggaan daan koy am ci waa Sen TV lan moo waral loolu loolu lañu bëgg a peut-être dañoo bokkul ay position ndax nag boo xoolee euh, ñoom nañu toogee di wax wala. Euh, moom moo leen arrangé wul mën nañu wax loolu. Mhm. mais qu'importe quand même nit ki même bu ngeen bokk li nga xam ne moom mooy gis-gis. Mhm. am na noo war a réagir ba kenn bañ la cee xeeb ndax boo xoolee ku taxawoon fii sànq di wax boo ko daal saa à dire avant mi wax da nga naan ci c'est un responsable. Mhm. mais day wax nga xeeb ko alors ko loolu war nañ ko mën a moytu quoi en nit ki ak loo ko bëgg bëgg bëgg bëgg sa leader ak loo ko bëgg bëgg y a une façon de réagir te kenn du la ci yab ndax Matissa Niang je pense que ni ma gisee ni du bàyyi yëfi mu sedd alors kan lay metti boobaa. ci kan lay métti ndax yow mi dóor peut-être nit ñi gis nañ la nit ñi filmé na la ndax ñi ngi fii nga xam ne moom mooy cybersécurité gis nañ li nga xam ne moom moo fi xew booba boobaak léegi depuis ñu tàmbali ak léegi ndax ñoom déjà présent sax ñu ngi doon def li nga xam ne moom mooy point de presse wala plutôt déclaration pour wax na ñoom dañuy porte plainte boobu lii amagul alors Mati dóor nañ ko ba li nga xam ne mooy jëbi toj. donc am nañ preuve wala sax ñu am motif bu légal ba nga xam ne mën nañ ko porter plainte parce que caméra yëpp tàkk nañ tamit gis nañ ñi nga xamante ne si noonu lañ def ki nga xam ne moo di Mati Sagna takk deex yi dugg nañ ci mais mu mel ni sax ñoom mënuñu woon rek gérer li nga xam situation bi